asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañuy door revue de presse bi ak kayiti xibaar bii di stade quotidien dafa door ci li nga xamante ne moo aju ci final bi ñu doon amal niki démb muy wàllum coupe du Sénégal diggante Jaraaf ak stade Mbour te Jaraaf dal di koy yëng maam yenu bi mu dóori stade Mbour ñaari bal ci benn boobu nag moo nekk li nga xamante ne mooy seizième titre boo xamante ne ñoom waa euh, Jaraaf dal dinañu koy gagné Mbour nag moom seeni mbir doxul ndax kat bu ñuy xool bi mooy ñetti final yoo xam ne ñoo ngi koy déng maam ñàkk ci wàllum finalu coupe du Sénégal

fii ci réew mi voilà de bi partout la jongante googu jeexee ñoom ñu daal di toog kon ñaari équipe bu Sénégal yi kenn jàll ci mu daanati gàcce encore Sénégal gi nga xamante ni moo gagné li nga xamante mooy Coupe d'Afrique yi ci mag ñi ci gone yi suñu club yi daal mënuñoo def loolu mooy li nga xam ne moo xew ni ki démb kon la daan a xewati préliminaire daal am nañu problème pour kon dañoo éliminer ñaari équipe bu Sénégal yëpp léegi ñu ñëwee tam ñu ngi wane seen bopp ci Europe stade dal na Jackson ne na mu ngi wéy di wone boppam fofu la Chelsea football club ndax marqué na li nga xamanteni moy son premier but ak équipe bobu nga xam moy Chelsea voilà te nek nak ko xamanteni dañu ragné bu bu baax a anam gi nga xamanteni kongir am na ko ngir wara mëna dégg maam daw ak ballon manam dal dafa mëna football dal ci gàttal mom Nicolas Jackson ba sax ki nga xamanteni moy Mauricio Pochettino don ko tag tag yu am solo ci li nga xamanteni moy weekend weekend bile mom kon marqué na son premier but ak Chelsea football club Ismaïla Sarr mom tam lu ne mel la amal voilà ubbi na son compteur de but ak ñi di wa Olympique Marseille gannaaw bi nga xamee ci weekend bile ñom dañoo amati ndam door door li nga xamante ne mooy saison bi ci anam gu am solo waaye itam li nga xamante moo xew ci Europe bu ñu xoolee équipe bu mel ni Barcelone ak Liverpool ñoom dañoo def lu ñu tuddee comeback gannaaw bi nga xamante ni équipe ñu doon dajal dañu leen jiitu ñu dal leen dab ba gañe leen loolu Barça moo ko def ak Liverpool ci weekend bi Manchester City AC Milan Bayern Munich ñëpp ku ci nekk da nga maanaam wéyal li nga xamante moom nga dooree woon a porté nak du kenn ku dul Kylian Mbappé mom mo delu si voilà dal di de nga mam euh, dougal ñaari bal lolo may ñi di Paris ñu am ndam ci li nga xamanteni moy jongante gogulé record danaka lolu ci la ñëwaat waye fi mu ngi indi Pape Matar Sar bi nga xamanteni mom niki de nga mam weekend bi la dafa am li di passe décisif gëna bi mo défé won li nga xamanteni moy match bu reuy contre United ci weekend bëlé marqué but bi nak mom dafa joxé ñu dal di dougal kon Pape Matar Sar mu ngi wëyel fofu la ci English Premier League bi jamono bi man nañu wax ne kat génné ko ci équipe bi dina jafé lool ndax kéro coach bi da ko jouer lo mu daf match bu reuy bi nak nag mu dal di koy tek mu confirmer encore kon man nañu wax ne post op titulaire bi mom mu ngi bëgg a nga maam nek yëfa mom pap madar sar comme ni nga waxé waxee sax décisif la ci weekend bile Ismaïla sar ak ki nga xamante moy Nicolas Jackson ku ci nek ci ñom wané nga sa bopp waaye itam kayiti xibar bi ñëw na ci ki nga xamante moy Mamadou Niang bi nga xamné ñu ngi sentu mu bok ci li nga ni voilà équipe bobu di Olympique Marseille mom mi nga xamné ne i jour bi ci gëna rañé ko ci histoire mom Mamadou Niang international Sénégal def fa jaloore bu né voilà ñu ngi sentu mu dal di denga mam jege si bok ci ñi nga xamné ñoy doxal club boobule wala loolu mbir la moo xam ne na dàqul ko te xañ na balaa yàgg dina nekk loo xam ne dina xew ñëwaat na tam ci élimination Casa Sport ak ñi nga xamante ñoo di génération foot ci li nga xamante ni moo aju ci wàllum Ligue des champions ak coupe CAF loolu tam kayit xibaar bi ñëw na ci ak jaraaf bi nga xam ne yenooti na li nga xamante ne mooy lii di coupe du Sénégal Angleterre bu ñu jëlee kayit xibaar bi di Mirosport dafa ñëw ci Liverpool bi nga xam ne ni ki démb moom mooy coow li gannaaw bi ko Newcastle United jiitalee dégg nga maam dugal ko benn bal ba noppi ñoom ñu am carton rouge encore seen capitaine bi di Van Dijk la jox carton rouge kii nga xamante mooy Darwin Nunez jógee ci banc bi ci minutes yu mujj yi daal di ñëw gañeloo Liverpool match bi dugal ñaari bal yoo xam ne mën nañoo wax ne ci minutes yu mujj yi la ko dugal koy tuddee Darwiner loolu mooy li nga xam ne moom la dégg nga def ni ki démb ci match bu Liverpool mën nañu wax ne comeback la ñu def ndax dañu leen jiituwoon ñu dal dabe gagné li nga xamante ne mooy jogante googu voilà ki nga xamante ne mooy Van Dijk am carton rouge Alexandre Arnold moom itam nekk koo xamante ni ki démb moom ay mbiram ñu ngi koy waxtaane ndax kat moom voilà doxul démb xaw nañu ko rey ci côté ba bu newoon ki nga xamante ni moom la ko booleloon daal da koo sonal lool loolu itam coono xam ne jamono bi topp na ko ci Kylian Mbappé mooy ki jox ndam Marco Asensio nee na moom it marqué li nga xamante mooy son premier but Mbappé nag moom doublé la amal maanaam marqué ñaari bal lance la doon dajal ma lance gi nga xamante ne nee la boo xamante kat équipe bu naqaree football la gu engagé ba ma noppi itam voilà war ci li wàllum Ligue des champions lance googu day moom la Paris doon footballal voilà waaye daal di koy dóor loolu nag nekk loo xamante kayit xibaar bii di aas moom mën naa mën nañuy wax ne ci wàllum athlétisme bi la ñëw ak marque yépp moo ci ëpp waaye nag aas ci suuf dal dina ci laal ki nga xamante mooy Vinicius Junior moom mi nga xam ne kat jamono bi gaañu-gaañu bi mu amoon keroog fi ne nii kat tax na waa Real Madrid nelawatuñu ndax xamuñu maanaam ëllëgam fi ne nii nag ne nañu tey ji dey dinañu am lu leer ci mbir moomu voilà dinañu xam ndax maanaam gaañu-gaañu bi ndax moom a motax bu gaño mom gaay dañuy tit fi mu ne nii Kylian Mbappé ay mbiram ñong ko don top gis ngeen fi ne wax ne danaka amatuñ ci yaakar waye nak ki di Vinicius Junior bi nga xamne xagn na ci mom lañ gënon ëpp yaakar mu daldi di am gaño gaañu waaye loolu yëpp fim mu Amanda nii amaana balaa bëccëgu bi di jeex dinañ ci am lu leer ndax gaño gaañu ba lu grave la am déet dinañ ci dellu Mundo Deportivo ñew na ci ki nga xamantene moy crack Lamine muy Lamine Yamal bi nga xamne kat jamono bi mom itam mu ngi wone bopam fofu la ci Barcelone de ndax match bi nga xamne ñom ñong ko don am wala ci euh, walum La Liga batay match bo xamantene yi kat ñoom Barça ñoo njëkk a jiitu waaye nag ñu dal di leen dab ki nga xamante mooy De Jong ba jiitu leen léegi nag ñu topp ci di daw ci ba ñu demee nag ba ci minute yi mujjee mooy ñëw dal dugal ki nga xamante mooy Lamine Yamal ñëw itam dal jox Lewandowski mu marqué bit bi nga xam ne moo tax mu ne Lamine Yamal mooy crack bi te jamono bii kat moom mu ngi doxal foofu la nga xamante mooy ca FC Barcelone waaye itam ki nga xamante mooy Laporte dal di ñëw muy Laporte bokk di président bu Barcelone daal di attaque nga xamantene mo moo Rubi Alès daal di koy xas ba xànc ko ko dara yemu ci mu daal di ubi bunt yi nee fi mu de Barcelone man nañu ubi bunti ndax kat ñu ngi sentu ñu amaat yeneen joueur yo xamne dinañ leen signé bala marché bi di tej nga xamantene ne ay fan yu ci dess lool nak ki di Juan Laporta moko ko di xamle kay di xibar bi di Mundo Deportivo Esport moom itam na ci Lamine Yamal bi nga xamne jamono bi kat nee kenn mënu ko té ndax gone gi kat fi mu man nañu wax ne kat wala ah, mu ngi wane bopam fofu la ci Barcelone ndax kat match bu reey la def nee contre ñi di wa Villarreal wa Villarreal lañ doon doon footballal ñii di waa Barcelone ñoo ci am ndam léegi nag ki nga xamante ne mooy Lamine Yamal mooy kii ñu gën a ràññee moom sax mën nañu wax ne mooy homme du match ci jogante googu gannaaw bi mu defee jogante gu rëy googule ba tax Barcelone dal di dégg dabe gannaaw bi mu jiitoo ñaari bal ci dara nekk fa di sàggan ba Villarreal dal di leen jiitu 3 buts à waaye itam ñu dal di dabe kii di Lamine Yamal mooy ki nga xam ne moo joxe bit bi nga xam ne am ne moo créé beneen occasion bi beneen bi mu def itam moo tax sport ak Mundo Deportivo yëpp dal di xëy dal di koy def ci xët wu njëkk waaye ki nga xamante mooy kii di Laporte nee na na ne dina am lu ëpp benn joueur boo xamante dina yokk ko amal voilà ngir xool yan anam la doxale ci li nga xamante ne ñëw ci seen kanam loolu nag ndaje moomu jàpp nañ dina am tey ji yi muy ndaje mu jàmp voilà boo xamante ne ñoom war nañu koo amal Real Madrid ñoom génn nañu seen xel ci Kylian Mbappé gannaaw bi nga xamee ne Mbappé kat moom fi ne nii voilà jël na décision toog ca Paris saint Paris nag ñoom li ñu bëgg mooy bàyyi ko fa mu toog ci at bi waaye nam balaa saison bi di jeex jàpp nañ ne war nañ ko mën a ba mu mën a prolonger am loolu mooy li nga xam ne kon ñoom ci loolu lañ mujj déggoo tax na leer na bu ñëwee ci ci këyit xibaar bi nga xam ne mooy Corriere dello Sport foofu la ci Italie ñoom tam ñëw nañu ci mbirum ki nga xamante ne mooy Romelu Lukaku Roma ki nga xam ne mooy xibaaru nee li nga xam ne moo aju ci njëg gi ñu ngi koy xeme ci 5 millions d'euros moom la teg ci taabal ji ngir ñu leen koy sogg abal voilà kon mu war a dem foofu la ci AS Roma loolu mbir la moo xam ne ñu ngi koy séentu tey jii waa Roberto Mancini ci Arabie Saoudite moom itam daal dina fay signé officiel officialisé nañu ko mbir moomule nee na ñu doot di signé contrat boo xam ne daf koy yóbbu ba waaye kii xamante mooy di nga maam Corriere Sport moom dafa ñëw ne 70 millions millions d'euros la daal di indi waaye itam kayiti xibaar bi yemu ci ñëw na ci euh, juif gi nga xam ne ni ki démb dafa souffrir dëgg ndax sonn na def ci match bi mu doon am digganteem

solo ñu ngi wëyel fofu la ci Serie A bu Italie Gazzetta dello Sport mom tam ci loolu la ñëwaat mu ngi xam ne ki nga xamantene moy Maximiliano Allegri kat ni ki dem bu mer deug la def mu ne Villa Vlahovic dal ben attaquant la bo xam mom doyut voilà pour mom tay gis na li nga xamantene moy arbitrage bi xew ni ki demb ci match bobu doon dox seen digënté ak Bologna nee loolu musiba la ken mëste gis lu mel nonu voilà nakar deug la ñu am même wa Bologna ñomit dañu dañoo mer ndax ne nañu am nañu penalty te arbitre bi joxut lan ko loolu ñu ngi koy nakarlu Chelsea football club gi nga xamantene ñomitam ñu ngi ci mbirum Romelu Lukaku bi nga xam ñu ngi sentu mo dal di teew foofu nga xam ne mooy ca AS loolu la ay mbir la yoo xamante xibaar bi daal dina koy indi waaye kii di Victor Osimhen nee na jox ndam ak euh, kii di Napoli ki nga xamante mooy ca Cagliari ci Serie A bu Italie loolu kayiti xibaar bi di Gazzetta dello Sport dal dina ci ñëw gars loolu lañ gënoon mën jàpp kon ci kayiti xibaar yi continuer suivre Sen Sport 221 the best sport news channel